asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci bi Equivox TV comme ni ñu koy defee à chaque fois nee naa leen lépp li nga xamante la ci lañ leen di toppal indi leen ci li nga xamante ni rek moom ngeen ci bëgg a xam tey nag ñu ngi fi nga xamante ni koo xam ni kenn dootu ko présenté ci réseaux sociaux yi muy délégué Amar délégué Amar bu Wali Seck délégué Amar bu Cheikh Amar moom la ñu dalal tey parce que yéen waxtaan ak moom dañ koy daal di nuyu rek d'abord bàyyi ko mu nuyoog ñuy seetaan balaa ñoo gën a xuus délégué ñu ngi nuyu di la maa ngi lay fay soxna si di siyaare ak nuyoo di ko jiital sunu xalifa général Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla sunu boroom yàlla def ko kàttan te wéral ko yàggal ko fi ba yéene ji mu am ci yoonu Seexul Xaddim ji mu matale ko ànd ko taalibe yi noonu tamit lañu koy ñaanee këru tarixe diine yëpp di ñaan yàlla sunu borom kàttanal leen ba naa li ñu am seen yoonu maam yi ñu matale ko di baalu ñëpp àq te di leen baal àq te di leen nuyu di nuyu sa cadre bi nga jërëjëf nuyoo bi am na solo délégué Ama dañuy xuus rek directement ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, waxtaan bi ndax yaakaar naa ni ki ne faramaari ne délégué Ama ñëpp ràññee nañ sa féete ci ki nga xamante ni moom mooy Wally Ballago Seck ba nga jàppee mu yàgg lool ba tey bàyyiwoo yaa ngi gën a téye mhm. euh, euh, tey ñu gis décembre bi ba janvier bi ni ngeen def Sénégal gis nañ dem Wally Seck jëlaat ay valisam dem Paris. waaw ah, dañoo jéggi nañ frontière yi. Mhm. dem nañ Gambie dem nañ mhm. yëpp ci bi la donc. suñu borom moo moo ñu ko jagleel dañ koy nangu parce que bu decembre ñëwee da ngay gis promoteurs yi dañuy xëccoo waale su ma jumul sax am na mille vingt 2024 bi soo moytuwul décembre bi fees na donc loolu tawfeex la lay wane ne que ne waali moom sénégalais yi ñoo ko bëggal seen bopp waali am na ñoo xam ne dañ ko bëgg ngir image am te yàlla rek tax am na ñoo xam ne wayi sax intéressé wu leen de jëmmi waali ji rek moo tax lañ bëgg am na ñoo xam ne ci def lu baax li muy def ci lañ ko bëggee am na ñoo xam ne ci way lañ ko bëggee ku nekkat ni ni nga ko bëggee ak ni nga ko soppee mm-hmm. donc moom it muy nit ku baax wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, du cof ay fansam parce que heure bu amee événement da ngay gis mu taxawu ay fansam jàppale leen mm-hmm. waaye leen loo xamante ji ëllëg bu waraatee tëgg foofu xale yi ci boobam ñooy sawar a demaat pour xaar lan la waari di indiwaat ci sunu concert voilà macha allah gis nañ ñi nga xamante ni rek wane na ko ci décembre bi. waaw waaw xam nga Paris ak ñi nga xamante ni mu la war a àndal. waaw xam nga Omaro moom mooy porte parole du gouvernement. donc mm. kon son excellence fu muy dem dafa war a àndal moom c'est normal. Euh, disque d'or bi moom man xaw ma ko yàlla rek moo xam. mais li wér bi wër a toog Sénégal un mois te tubaab yi woowuñu ko. parce que dafa sumb loo xamante ne nii que lu liggéey la. Mm-hmm. te liggéey tubaab yi boo ko sumbee moom waaw ah, ñoom suñ la wooyee midi midi demi na la fekk sa bërëb ba mm-hmm. waaw donc kon loolu la rek mu toog tubaab bi woo ko mu war a dem France xamuñu nag lan la jëli moom it mën na nekk sax xamul lan la jëli mën naa dem ba waaw mën na mën na dem ba àgg mu nekk disque d'or mm-hmm. boobu baa moom contentement day am ci ñun am ci yéen sénégalais am ci ñi nga xamante ne nekk tamit dañoo bëgg lu baax waaye ñu bëgg lu bon nag waxaale mu leen muy xale boo xamante ni bu defee 13 mhm. ans ci li nga xamante ni moom mooy euh, euh, ba mu dooree ak léegi motee 13 ans wala 10 ans ci la yem. Mhm. amaana yàlla wërsëgal ko macha allah mu nekk xale boo xamante ni mu ngi ci yoonam mu ngi koy bay mu ngi bay waaram bu baax a baax mu wane ni carrément ni liggéey rek moom mooy fayu. Mhm. waaw xam nga waale moom sunu borom moo ko def ni mu koy def parce que bi mu ñëwee ci musique bi wax nga ko yàggul fekk na fi ay nawleem fekk fi ay fekk fi ay maamam fekk fi ay magam ak ay donc mu ñëw fi def fi loo xamante ne nii que ah ay baayam ak i maamam sax bi ñu nekk ci musique bi amuñ defuñu ko fi woon donc génération bi nga nekk nii ay maanaam génération bi nga toll nii génération waale la parce que musique yi ngay déglu di ko doo ko déglu ci Papa Thione doo ko déglu ci waa ci ci Youssou Ndour doo ko déglu ci keneen ci waale nga ko mën a mën a déglu parce que waaye moom méngoon jamono donc muy loo xamante ne nii ko am nañ tamit mbégte mbégte mi mooy euh, waale à chaque fois duñu rusloo. te waaw waaw constant à na artiste yoo nañ fi jékki-jékki euh, kenn déggatu leen mais moom. ci mu nekkoon. moom sax am na ñu fi fekk. voilà ci ligne bi mu nekkoon boobu léegi fa la nekk constat ci benn. waaw parce que parce que dafa gëm li muy def ba pare moom xam nga sens bi Wally am mooy hmm. képp ku ko gis da koy bëgg. waaw maanaam bayrab bayrab kànkunaa la am maanaam boo ko gisee maanaam buñ la doon wax ci waali lu bon sax boo gisee image waali rek da koy bëgg te doo xam lan moo la koy bëgg loo fii góor yu bëri ñu ngi topp waali ay jamono dañoo bañoon waali ñu bëri ñu ngi topp waali te ay jamono dañoo bañoon waali xamuñu lan moo leen indi ba tax ñu bëgg waali loola la délégué. mais parce que naan waali du neenum neen. waaw parce que loolu lu tax moo xam na ko moom. xam nga nit moom kenn mënu koo gën a xam boppam. waaw te yàlla tamit moom moo ko def ni mu mel. moo ko def ni mu mel de du ci ñun du ci kenn moo tax ku koy jéem a fàqatal wala ku koy jéem a def yenn yi sa bopp ngay sonal ndax yàlla moo ko def ni mu koy def taal ko tàcc ko sawaay waay fecc loolu moo am solo waaw. mu def geste boo xamante ni bu rafet la. fële nga xam ni moom mooy euh, Bambilor jënd ay hectares yu bari daggal ay musiciens ku nekk 200 mètres. Euh, mu nekk geste boo xamante ni vraiment euh, tey jii ban gis-gis nga ci am wala ban ban jàngat nga ci mais loolu loolu ñun yàgg nañ déglu musique mais mosuñu gis benn waykat def lu mel noonu. Mm-hmm. donc c'est la première fois ñu gis benn waykat boo xam ne dafa jënd ay par ay ay terrain jox ko ay tëggkatam kon loolu may wane ne que moom buggul lekk bàyyi ay ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi muy def. te gis naa ne moom it ñaanul yàlla dëkk foo xam ne tey jii nii building la ay ñi muy liggéeyal xamu ci yenn melokaan la ñu nekkee kon lii mu def nii du du du loo xam ne tey nit da ko war a ñaawlu bu dee nit nga laa la wax ngay nit ku baax wala ba pare ngay gor geste bi boo ko déggee daf la war a neex parce que geste bu noble la te loolu la ñuy xaar gis nga gars yi ñooy ratatati di wax di mbaw di fen rek sa di liggéey ak ñi mu àndal te loolu moo am solo te heure bu ngeen ko gisee nit ñi di ko coow ci loolu xam ne lu négatif la moom day génn indi leen loo xamante ne nii que lu lu luy jéggi seen xel la. est-ce parce que tey jii nee naa la ki la teggil oto taxi te teggil la kalandoo teggil yàngoo kooku kooku kooku deselatu la dara waxatuñ ñuy dem ci kanam mu teggil leen li nga xam ne mooy jënd kër te bu ko neexoon du leen du ko ci fekk. kon kon maanaam waali ñi muy àndal moom desee la tuñ ko dara dara dara mm-hmm. wax dëgg yàlla mm-hmm. donc muy geste boo xam ne geste bu rafet la mu tuddee ko tamit papaam waaw c'était papa Thione donc moo war a doon loo xam ne buñ ci yàlla yóbboo ci jàmm ba tabax ko ni ñu ko war a tabaxee bu ñu dem immigration bi dinañ ko xam ne ah Ramadane waali seetaanu leen waaw voilà comme ni nga ko waxee kon tey wax ci ñenn ñi nga xamante ni euh, ñu ngi génn ci réseaux sociaux yi à travers TikTok naan dafa def acte boobu pour fay li nga xam ni moom mooy coow bu fi am. ban coow moo mooy audio yi nga xamante ni Adamo génnee na ko. audio. voilà ci Amady Badiane ak euh, yeneen ak yeneen yoo xam ne nee na bu si déglu woon tànkam Ramdan dina gën a fës. non xam nga nag wax dëgg yàlla bëgguma def émission ñu may tuddal ay nit yoo xam ne sunu borom daa jagleel ci sama jëmm ji ak sama deret ji may nawlonte ak ñoom ndax man. su dul dara sunu boroom def na ni gëm naa sëñ Tuubaa te ay murit lañu eh, ay nit yu baax lañu te it jomm nañ di waxat koo xam ne tey jii maanaam boo doon waxat sa wu jigéen sax da nga koy enregistré donc kon ñooñu man awma man boog délégué awma temps di perte jëmale ko ci ñooñu am ma di bajaan amul problème at ma sàmba amul problème at ma dem li mu nekk ca waali ci lay xëy di nekk subaat ngoon te diggante waali ama di bajaan kenn du leen féewale sobe sëñ Tuubaa loolu du mus a am. waaye lu ko neex na wax moo tey. mais ma de déggoo ma de Amady lu ko neex na wax moo mais du tax ñu séparé woo Modou Aly loolu lañ yàkkamte ñoom sénégalais yi at mbaam àll yii leen yónni ñoom ah. mbaam àll yi leen yónni ni seen i patron loolu lañ yàkkam du am soobe Sëñ Tuubaa bu yeboo non ñi ni yónni pour ñuy wax di génn nangam di fen di dajale rek seen patron yi ay mbaam àll lañ da nga jàpp ni audio yi maanaam li ko li ko li ko daam ne ci ginnaaw dama ni la xam nga fi mu toll nii boo bëggee jot waali da ngay laal Amady Badiane hmm? boo bëggee jot Amady Badiane da ngay laal waali am déet mhm. parce que xam nañ ne ñoom ñaar mburu foofu ko fariñ la kenn mënul dem bàyyi sa moroom Wally c'est vrai que il faut ngeen xam ne yéen tamit waal yi moo fi taxaw fii ay yooni yoon yëkkati Eumeudi sagal Eumeudi fu nekk mu lu nekk mu wax ko ci jëmale ko ci Eumeudi dem na ba ni sax bu daan Eumeudi bu daan sol benn tubay day jël tubay boobu moom Wally nangu ko sol ko waaw mais léegi suñu demee ba lépp neex nag waa waaw daxaw rek bu demee ba lépp neex nag ay noon taxaw fu ñu mën a jaaree pour yàq mais est-ce que tey noonu yooyu du du du ñoom ñoo leen may accès parce que tey am na audio yoo xamante ne buñ ko buñ ko génnewee waxtaan su amul woon tamit loolu enregistrement appel la mais mais woote xamante ne du ko métti la ci waali sori foofu parce que la mu seqal moom tax ñuy communiquer ñoom ñaar ñoo ko ma wér ba àdduna Hmm? voilà. mais tey wax lay pexe yi daal mooy pexe yi mooy Eumeudi deful lu araam deful lislaam di tere. comprendre nga ci li mu nekk ca la nekk te ci lay wéyal Eumeudi Waly mii ñu bëgg a na na dañuy nëbbaxlu xam naa nag ah, dañoo mos nag seen eh, dañoo dañ cee dalul rek mais liñ bëggoon bu antoon dañ ciy dal. mais daa fekk daa déglu rek daa fekk ñoom ci bi ñu duggee ci gouvernement bi dañ fi fekk ay député yu mat li ñu doon. bu ñu génnee midi ñun tamit ñu génn midi parce que nag kaay ma wax la de dañu sonn rek barkeb Serigne Saliou Mbacke diggante Amady Badiane ak Waly mënuñ ci dara Waly wax na ko Waly lu mel nii la xamoon moo tax mu ni ko boo ma tooñee bëgg naa xaw ma lan boo ma xaw ma xaw ma nu ko waxee noonu yow xam nga li may wax ah boo ma tooñee bëgg naa parce que yu mel nii xam naa loolu parce que Waly day gis loo xam ne tey ñëwagul voilà mais mais ñi naan wa euh, Ramadan dañuy dañuy faire semblant mais ci biir au fond ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey xol yi àndul. ba pare am ay différent damay laaj yow mi nga xamante ni amaana yaa ma leen gën a jege. non non dama ne dama loolu du loolu du question xam nga nit ñi dañuy fen kenn ne ñiy wax loolu yëpp kenn nekkul ci biir Ramadan man mii sax liggéeyuma Ramadan nekkuma biir Ramadan waaye li ma wér bu wóor mooy buñ taxawee ci kaw seen bi dinañ bëgg dinañ kontaan seen artiste dina bëgg dina kontaan waaye ay soppeem dem ñibbi. mosoo dégg benn musicien waale bu nekk ci kaw seen bi nga gis ñuy fasante kanam wala nga gis ku du ree ñoom ñëppay ree di way di tëggal seen seen seen seen i ànd ko seen artiste kon foofu problème amu fa te du fa am parce que ñoom xam lu tax du fa am dañoo déggoo seen biir bi ñu déggoo wee ba pare dañoo ànd booloo bëgg waale bi nga xam ne mooy seen patron kon foofu amul jafe-jafe te du fa am nañ dalal seen xel waaw bu fekkee nag neexaay gi yi nga xam ne moom la ñu dund fi mu toll nii jamono ji jaxate laat beet yenn way yi moom lañ ñu bëgg a yàqal dañuy sonal seen bopp nañ jéem a dem fexe wuti artiste bu way lu tax nit ñi lu way loo xam ne tey jii xale yi ñu ngi koy jël di ko TikTok wala ñu koy def kii que ce lu mën a doon parce que artiste bu ne indi nañ ko fi artiste bu ne indi nañ ko fi bëri na fi Sidy Diop eh, benn artistes yu bëri indi nañ ko fi teg ko ci kaw waali mujj gi dee dem ba artiste boobu mooy découragé xam ne lii du wéy parce que gis nga ki suñu borom may yenn yi bul ko jéem a xeex est-ce que comprendre nga baax fi ma seen yi ñuy def mënul yàq lu toll talafartaay ni jëmale ko ci ramdaan wala mu jëmale ko ci faramaareen ñoom ñëpp mooy lobby yi rek lobby yi nga xam ne dañoo taxaw ne dañuy ànd xeex waal yi ba waaw lobby la rek xam nga tey jii mm. lobby la boo xam ne tey boo bu ma man bu ma leeroon ne man mii am na ñoo xam ne dañ may woo téléphone tey bu ma d'accordoon ci cachet yi may jox wala nangam waaye yàlla daa daa dogal ne mayuma fit kenn koo xam ne am nga sañ-sañu yëkkati sa téléphone di woo délégué Amar ne ko dama bëgg nga séparé woo at waale man kenn du kenn amul fit woowu nag ndax ku ma ko def dootoo ko def sa àdduna parce que tax. dama bëgg waali ba mu leer na ma man dama ko bëgg xam nga bëggantu yi gars yi def moo waral détournement yi di am di fay ay nit quatre millions cinq cent ay nangam ñuy dem di jaay seen ngor te am na ko fi taxawoon fii ne waale ko jëndal kër terrain bi bi mu génne bi ñu ko dàqee xamul baayam xamul yow waale la xam waa tey kooku bu demee nag bay xas waali sëñ bi àdduna demee noonu gor moo yombatul soxna si gis nga gor billaahi yombatul c'est très rare nga gis gor dëgg dëgg dëgg dëgg xam nga showbiz nag du diine waaye nag ngor da cee am solo waaw. mais gis nañ ci tamit ah, ci biir Ramadan maanaam di ci dégg yoo xamante ni daawuñu ko ci. bàyyil Ramadan. non non dañuy wax tànn rek am na parce que tamit loolu actualité la. la Ramadan mais Ramadan mosuñu dégg diw génnee audio kii wala diw def lii wala diw def laa. ci ci ci ci biiram daal euh, mais waa ji ba mu amee euh, yàggul waa ji ñu gis nañ dëgg ma rek gis nañ ñi nga xamante euh, ne ñoo ak Wally Seck waaw bàyyi sama question nga àggali gis nañ ñu ànd ñu doon ànd ak Wally Seck Pawlish Mbaye kenn gën ko jege Wally gis nga fan yi sorti yi nga xamante ni mi ngi koy def moom itam mhm. di ñaawlu nga xamante ni noonu la ñuy noonu la defee semblant ci biir waa loolu da koo metti moom ah léegi na matt bakkanam te xam ne mënu ci dara li wér ba mooy soxna si nañu bàyyi di wax ramdaan nangam man nangam ramdaan amul problème. mais bu fekkee déglu rek xaaral ma wax la rek. wa ramdaan ña fa nekk fay nekk ba léegi ku fa ñëw dolleeku fa daa neex waa ramdaan moo tax mu ñëw dolleeku fa. non loolu concerné wu ñu xamoon nañ ko at waali d'accord man du ma du ma du man bu ma attaqué nit rek na nga def waali moo tax est-ce que comprendre nga baax fi yàgg na ma fee moom attaqué ay yooni yooni yoon musuma koo tontu musuma am ci moom soxla comprendre nga fi may waxee mais nag man boo xasee ba cokkaas waale rek son excellence rek man moom sama xaritoot yow at lu mu mën di doon moom day dàkk ma commencé nag toog ci média bi. mais moom ku ne xam na digganteem ko métti tax mu wax. waaw léegi loolu la am lu ko métti ah. Mhm. waaw na génn wax rek nay wax ba suba. nay wax ba suba am na lu ko may tëjwaale waa nag génn di ko wax kay amul problème bàyyi gis ngeen ñun ñooy gis nga gaa yi yéen sax yéen leen may yenn yenn kii tur yi que bu fekkee ne nit daa toog fee rek ne damaa am lu ma naqari ci wàll rek si internet yëpp daw mais Pawlish tamit ku ne xam na ni nekkatul ci dëkk bi aussi gis nañ maanaam li nga xamante ni noonu la ko waali defoon mu def ko waali aussi bu demee moom ba wàññi wàññi digganteem ak waali wala wàññi am am ak ak malaaj la euh, mu jàpp waali at mu bàyyi waali lan lay apporter waali délégué Amar mu mu jàpp waale at bu bàyyi waale lan la koy apporter da koy tey dund teewu ko dund di ma ngay lekk di naan di tëdd di yeewu di toppatoo ak njabootam waa léegi bu ko kii bàyyee wala bu ko kii meree lu mu koy wàññi ci koo xam ne liggéeyoo biir ramdaan waa ki liggéeyul biir ramdaan bu la bàyyee lu mu lay wàññi ah soxna amul sens yi moom liggéeyul biir ramdaan de mais ñiy liggéey biir daan su fekkoon ne sax ñoom ngay ni mën a wax ñoo am problème ak Wally d'accord mais ñooñu ñoo la gën bëgg Wally fan yi nga xam ne ñoo di seetaan si Wally xam nga nit ngay àndal moom mu nekk sa patron ngay liggéey at moom ba pare bëgg ko loolu diggante kenn du ci mën dara ndax suñu borom ba koy sàmmal boppam parce que dañoo bëgg ki nga xam ne mooy seen patron ba pare liggéey bi daw ñëw voilà. ñi xamante ni ñoom ñooy ñi ñi ñi bees ñi ñëw Ramadan. waaw yaakaar naa ne yaakaar naa coow lépp loolu loo ko waral. non ay nit la ñuy ñëw dàq si seen wërsëg nekk ci bërëb doon fa liggéey te gisuñu fa seen bopp vingt mille douze mille yi leen di fay ñu dem ba mënatuñ koo attan ñu ni xaaral ñu dem xool feneen ñu ñëw nag bi ñu ñëwee seen seenu baay wax ñaxtu wax li leen metti ay xaritu baayam ak ay fans baayam at yooyu jox ko jox leen jox ko njëgu ndékki bi nga xam ne moom la ñu a xëy demee ca saf jox ko ko mu yóbbu ko këram tabax ci ab néeg akub saal ak salle de pour def ko jox ko yaayam loolu du yokkute hmm? waa léegi bu nekkoon ci ruq boobu di fecc ba ay tànkam di métti ñu jox ko douze mille waa douze mille waa douze mille waa douze mille yooyu mën na kaa tey ba semaine bi jeex waa déedéet rek douze mille lañu douze mille lañu fay parce que ñoom duñ jaay ticket trois cent mille mënuñu ko yaay si benn soirée waa léegi bu ñu ko joxee douze mille mu jënd jël deux mille dugal ci añ ci di wala mu ndekki ci yónnee yaayam cinq mille yónnee baayam cinq mille la cay des waaw léegi nag bu gisee loo xam ne mu ëpp doole loolu si Lamine Niass ñaata journaliste la fi defar ñee nga TFM ñee nga Sen TV ñee nga 2STV. te pourtant moo leen defar est du dem jugee euh, cinq étoiles ñëw Ramdam looloo looloo indi problème bi aussi tam. luy 5 étoiles. Sidi Diop. non non ah ñoom noonu lañ tudd. Ah, jugee 5 étoiles dem fan. daan daal. waaw mais déedéet déggoo ma ne la soxna si. loolay loolay dama ma ne la. wax nga xam ne ñu koy la tënkal affaire bi. tey jii li nga nekk di def si suma ah. Mm-hmm. su ma jumul bu la Youssou Ndour woowoon tey jii fëgg la lu diis nga bàyyi sa waay mi ah? ba nga dalee def liggéey bi léegi jaar nga ci ay tele yu bari. Mm-hmm. waaw mais ku nekk xam nga lu tax nga nga jóge foofu dem fee parce que yi bokkul kii yi bokkul. cachet yi bokkul ak salaire bi bu ma la doon fay cinquante mil sa waaye wóor di la fay soixante quinze mille doo dem ci moom am dët waaye léegi ngeen bëgg nit ki daal di toog ci benn bërëb rek di fecc ay tànkam di metti muy jël douze mille francs chaque jour chaque jour chaque jour kooku bu yàgg <coughs> pardon kooku bu yàggee moom ay mbokkam baax dinañ ko nawlooti. que tamit loolu euh, parce que ñenn ci sénégalais yi ñu ngi wax naan euh, maanaam xeex. Sidi Diop daal parce que boo xoolee Sidi Diop ni mu doon doon liggéeyal yëpp ñoom doon liggéeyal ñëpp tey bu ñu ko calculé ñoom ñépp daw nañ dem ci dem ci Wally Seck ba ñi nga xamante ni sax dañ doon défendre non xam nga tey euh, jii di Diop parce que dañoo dem ba xam ne dañoo dem ba xam ne dañoo dem ba xam ne fii ay pexe la woon te bi mu nekk di def daa laaj am xaalis te boo ko amul mënoo dem te non Wally dafa am xaalis macha allah ay xaritam am xaalis ay soppeem am xaalis ay garde ñi koy garde am xaalis moo tax mu mën a def bii waaye ñoom suñu borom da leen a jagleelu loolu bu fekkoon nag nangu nañ li yàlla def waale ñu nangu ko ànd koon moom suñu borom sax mën na leen dimbali parce que dina xam ne ñi ay jaam lañ mais amuñu xolu keñaan waa loolu la rek yenn yi xolu keñaan la di soxna ah, mais bu yaa ko formé yaa ko xamle Sénégalais ba Sénégalais yëpp xam ko mu xëy xëy kenn ku nekk ci ñoom di yolleeku ndànk di dem loolu tamit ba dina neex ci xol délégué bu doon yow tamit. waaw mais yow tamit nag waaw yow soxna si tënkalu ma la affaire bi léegi. mais tënkal nga ma ko mais. rek Messi ku la waxoon dina jóge Barça di nga ko gëm ah? Messi xam ku la waxoon dina jóge Barça doo ko gëm waaw léegi jóge Barça dem Paris léegi fu mu teeri jee xaw ma maman yaa xaw ma fu mu teeri jee noonu adduna demee noonu ku nekk ci la nekk di def dangay ñaan yàlla yokkute ak avancement tey di nga nekk ci entreprise di fa liggéey di fa liggéey ñu lay fay deux cent cinquante ñu dem di liggéey di liggéey nga liggéey liggéey fa loo xam ne maanaam santuñu la ko woon sax nga am yokkute boo def ci biir entreprise bi ñu woo la yokk sa saleer am na wala amul mu noonu. mais ñun de leen seen baay sax faale ma ko. ñoom seen baay seen patron. borom label bi faale wu ma ko de. borom xaw ma nu tuddoo. man sama gémmiñ gi du tudd ay tur yu araam loolu yàlla ma ko nattoo. nag ñoom jàpp nañ ni euh, maanaam ñu ngi seen yoon di liggéey. yàlla leen yàlla taxawut a jàppale leen ci. yoon wi ñu ne ñu dënmal ko suñu borom defal leen ci tawfeex waaw. yow daal maanaam ñii di wax naan jàpp war woon ñëw lii wax yow daal loolu gisoo loolu. jàpp day liggéey ñëw def demande am gars yi jël ko muy liggéey waaye léegi ku ko soxoree loolu yow kon doo jullit di mais dañu waxtaan rek soxna si xanaa xamoon ne tey jii yàlla mën nay def ay affaire di testé waale di xool ban genre la di yebal genre u njàpp yi di xool ba xam dinañ ko dàq wala dinañ ko ñàkk jox war ma wala dinañ ko ñàkk teggin bu amee rek suñu borom day fànk lépp lu mu doon defal waale parce que am na nit ñoo xam ne bu ñëwee ci yow rek at ni ñu ñëwee ci yow benn façon melokaan la ñu ñëwee ci yow façon nit ku nekkat ni muy ñëwee ci doomu aadama bi kon ñëw jàpp kay amul danger yéen a ko bëgg a def danger rek xañ na da ngeen ko koy yéenewul. loolu ñàkk yéene mais ah. maanaam demin bee doy waar. de nu mu doy waar nu doy waar. Ah, jugee jugee jugee jugee ci. toog jugee cinq étoiles rek ñëw fii ne damaa seet sama baay ànd sama ta waale bu góor boobu di Sidi Diop ah yabal ko mu dem seet si baayam. Eh, eh, mu ñëw fecc na fa war a feccee dem ñibbiwaat ñooñu toroxal ko dàq ko ca xaj. toroxaluñ ko di dañuy kaay ma wax la dañuy fen de. déglu ma rek eh artistes yi dañuy fen dañuy wax ni ci internet bi naan la nangam nangam fenn kese la li ñuy wax gëmuñu ko buñ defuroon njàpp toroxal ko du bàyyi foofu di ñëw feneen. booy yi waa déglu rek am na booy yi fi nekkoon daw lañu gis ba tax ñu daw ñoom ñoo ko xam mbir mi du ay pexe voilà. dara nga kontaan dañu baal rek nga tàggatoo ak ñuy seetaan. jërë ngeen jëf waay ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay merci beaucoup.